l'actualité en continu actualité on va parler également de message bi nga xamné Iliman Ilimane illuminé illuminé Doudou Badiane Ndiaye envoyé nako ko Boulaye Boulaye Dia également Neymar bi nga xamné dañ ko menacer tay mu joxe indice ci euh, ki nga xam Lionel Messi ak également Erling Braut Haaland record gars yi loolu la mais d'abord nak li nga xam donc passation de service amna entre ki nga xam donc moy Yankoba Diatara ex ministre des sports ak ki nga xam mooy Matar Ba mi nga xam nak mo nek ministre multifonction parce que légui mo moy yor ministère des sports mais nak li ma si xaw jaaxal que ne passation de service bi dafa bëri ay ki quoi folklore quoi dafa yàgg trop 18 heures 30 ba ay 19 heures jëm 20 heures ñu ngi nekk foofu di folklore ay témoignages jàmm mais aussi quand même beaucoup bon beaucoup de courage ak ki nga xam mooy donc Yankhoba Diattara mais gars yi kenn du mënu ñëw <laughs> defaat beneen mi mëninam nee na arbitre bi arbitré tey seen match bi nga xam ne ñoom <laughs> waa waa AS Rome dañoo témboo nee na arbitre boobu moo gën a nul ci carrière mi ane mos ta gis arbitre bu nul noonu mais aussi que mooy en tant qu'entraîneur de la Serie A, Stefano Pioli. Donc également beaucoup de respect à cet entraîneur du Milan. Ah, c'est également Nidia Juve, la Juve, Modo Lecce, hein, 2 buts à un euh, avec Paredes et Vlaovic qui ont marqué. Paredes, bien entendu, Ramon Paris Saint-Germain, Mokodadi allez. Mais c'était aussi l'occasion de retrouver entre deux amis. Yoham Daniel Godjon qui s'est dit, c'est Wati, Terrain, là, Bogawa, Mouy qui donc, qui euh, dit euh, Paul Pogbach. Akili Samuel Umtiti donc nga Pogba a di Big Sam pour aller également que le respect qu'il y a entre les deux hommes euh, Samuel Umtiti également franchement dama ko yéene parce que il a dafa galère dafa galère mais il respect à lui et pendant ce temps l'Inter de Milan avec bien entendu Lautaro Martinez. gars yi donnent doon doxantu doxantu lañ pour rester parce qu'aujourd'hui ils se sont promenés 6-0, 6 le Inter de Milan dali actuellement ils sont en forme les Interistes et nous nga également donc donc Milan l'autre Milan ils ont été tenus en échec. Fode Balotouré était bien entendu hein, euh, titulaire avec Crémono et Zelendon Juerei. Balotouré, Migramné, voilà, ça fait du bien. Mouida de jouer pour un Sénégalais en temps de jeu, c'est important pour lui. Et on a aussi pendant ce temps aussi, hein, notre jeune Demba, lui aussi, il a joué avec son équipe ñu dynamique bu on veut le voir jouer parce que c'est un gosse très très très très très très excellent très excellent bah il est très talentueux Demba ñu koy Dia ah voilà beaucoup de courage hein. mais aussi que dire de boulay Boulaye Dia il a reçu son ballon ballon bi lañ ko jox ñëpp signé ko ndax triplé bi mais boulay Dia bi nga après match bi selon les informations ñi nga xam ne donc Fiorentina teg nañ ci 15 millions pour la de Boulaye Boulaye Dia mais aussi am na keneen koo un lancé na message muy Iliman Illuminé Doute Padel Skillman boostar boy. nee na mais 29 boulay Boulaye Dia bi yi dafa mel dafa am magie dafa am lu ci nekk quoi y a quelque chose dans qui a qui a ci numéro Boulaye Dia mu ne loolu secret la boo xam ne dañ koy garder tuuti loolu la ko Boulaye c'est-à-dire tontu gis nga mu un peu de magie et une chose mais on garde le secret boss ñi nga ñoom waxante donc respect aux deux hommes ki nga xam également nag mooy donc Noah Fadiga le fils de euh, Khalilou Fadiga aujourd'hui également Brest moom mi sur la course pour le maintien en Ligue 1 et ils sont sur une bonne dynamique parce que tey am nañ victoire donc, on espère qu'ils vont se maintenir. Mais également, Manchester City, dorénavant leader de la Prime League, Destination Ben match en retard, 79 points contre 78 pour Arsenal. Mais que dire du cyborg Erling Bro Haaland gain même même de tasser karaw bout de tasse cheveux ni ko xale cheveux Ça moi most goal guy in the single season guy, plus de buts dans une saison première saison guy, 35 buts battre record battre le record de Andy Cole également de Aaron Schiller montre guy de c'est 35 buts ko most goal in the single Premier League season pour ki nga donc Cyborg bi il est bien parti pour devenir le soulier d'or de cette année il a juste 22 ans ce gosse 22 ans et pendant ce temps également Pep Guardiola 1000 buts en 404 matchs 1000 buts en 404 matchs Pep Guardiola qui du Pep dañ nous Pep rek nous du Pep Qui du bayyi Nous du bayyi Pep Guardiola Pep du ko am même bu féké né amul Pep karo ci diggu bob bi <laughs> mais quand même Bon, go. et ki nga xamné nak moy donc La Liga attention au Real de Madrid attention l'Atlético de Madrid dorénavant mon dauphin bu FC, Barcelone 69 points, Real Madrid 68 points, fi nañu principal rival d'abord pour Real mooy bu waa Atlético de Madrid ñi nag di ultra du Paris Saint-Germain dañoo dem tey casse Paris tey dañoo yëngu Paris tey dañoo yëngal dañoo yëngal carrément nee nañ seen dirigeant yi nañu dañu dem entraîneur yenn joueurs yi dirigeant yi président bi nañu démissionné daal dem seen mais aussi ki nga xam Neymar dañu ko fekk këram moom këram lañu ko fekk di ko wax lu nekk wax nañ ko mu daal bind li they just left my door ils viennent juste de quitter hein, la porte de ma maison mon hein, mu ngoog gis ngeen kii di Neymar tey lii la ko gars yi dikkee moom it tax na nag daa ñaaxu jom Neymar moom daa ñaaxu jom parce que après dafa am ku publier benn publication moo dafa jël Neymar ak euh, Messi soo leen mayo Barça Neymar daal di koy like Neymar dawul coow de dañu naan dawul coow Neymar, Gaï, Daoul Chow et Neymar donnent des indices peut-être pour dire que Lionel Messi va retourner du côté du FC Barcelone. Gaï, c'était les informations que je voulais vous donner. Toujours un plaisir de vous servir. Vous barrez le vous bonnet nul. Demlen, vous abonnez. vous Babo Show tout de suite. La vidéo sur Jude Bellingham dans 30 minutes. Vous faites voir à comment le Real a pu le convaincre. On avance ensemble,